maa ngi nuyu képp koo xam ne rek patriotisme mu ngi ci yow Sénégal gënal la lépp ba gënal la sa bopp di wax ne lu tolloog gën cee néew juróomi at mu ngi nii ñuy waxtaan ak askan bi di gindi xale yi di conscientiser dafa nag ci moment yi ñu toll mu nekk moment yu difficile dans l'histoire politique du Sénégal ñu def benn analise froidement avec beaucoup de recul ndax situation léeg am na fu muy toll fokk nga dal ànd ak sa xel wax loo xam ne moom méngoo ak contexte bi dëgg la nit ku nekk bu doon sa sago li nga bëgg nga jot ci ci ni nga ko bëggee waaye léeg contexte mooy waral nga def lu ñu naan ay concession contexte mooy waral léeg nga bàyyi daal ndonte neexul te tey toll nañ foo xam ne les patriotes il faut que ñu waxante dëgg ñu xool li mën a ne ñu fexe ba mu nekk li mënta ne ñu xam ne lii mënta ne am na yoo xam ne mën nañ ci def concession am na loo xam ne mënuñ cee def concession loolu it hmm, am nañu conscience ci loolu bi may njëkk a wax mooy le président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñooñu la àndal il faut que ñu xam dara le président Ousmane Sonko dafa yor ñaari levier de te boobu léegi benn levier bi képp la utiliser président Ousmane Sonko saa yu ñu daal ci kawam néewal ko doole xañ ko àqam ak yelleefam benn levier rek moom lay jëfandikoo muy woo askan bi woo jeunesse bi pour que ñu résister. waaye président Ousmane ko am na beneen levier bu gën a puissant levier boo xam ne bis bu ko actionné Sénégal dina dugg ci instabilité waaye président ba léegi nangu ko actionné par souci républicain ak Sénégal bañ a basculer dans l'instabilité donc maa ngi doon wax ne. président Ousmane Sonko am na levier bu am doole président Ousmane Sonko am na levier boo xam ne bis bu ko actionné Macky Sall ñàkk pouvoir am bis bu président Ousmane Sonko actionné levier boobu quel que soit équipement yu gendarmerie am quel que soit équipement yu police am du ñu mën a contrôler. conséquences yi c'est impossible ndax bu leen fàtte ni Pastef parti politique la parti politique boo xam ne dafa organisé wu parti politique boo xam ne am na ay cellules partout au Sénégal ak ci diaspora bi am ay sections te gën cee néew Pastef am na au moins un million de militants un million de militants yoo xam ne am nañu conviction ci li nga xam ne mooy projet bi un million de militants yoo xam ne amuñu sikki sàkk ci ki nga xam ne mooy seen président muy Ousmane Sonko un million de militants yoo xam ne bu leen Ousmane Sonko ne leen génn ne la waxoon leen ne nañu génn dañuy génn waaye président Ousmane Sonko ba léegi nangul actionné levier boobu askan bi lay woo pour askan bi exercer son droit à la résistance mu nekk benn appel bu aléatoire boo xam ne du appel ciblé am ñu génn am ñu toog waaye président Ousmane Sonko bu bëggoon Sénégal basculer ci instabilité mën na ko xam na nu mu koy defee waaye ba léegi président Ousmane nangu koo def am na lu bari lu mu ciy xool moom moo ko xam ne ndax bis bu Pastef organiser la résistance dama ne bis bu Pastef organiser la résistance lu raw lu amoon mois de mars mooy am ndax bu boobaa day nekk une résistance boo xam ne ça a été réfléchi en amont préparé ciblé président mobiliser ay sections mobiliser ay cellules teg ay stratégie ku ci nekk tâche bi nga xam ne moom moo la war jox la ko bis bu président defee loolu non Sénégal dañu gis leneen mais président Ousmane Sonko nanguwul actionné levier boobu moom nag moo xam lu tax nangu ko actionné waaye xam na ni il a la possibilité loolu moo tax ñuy woo le président Macky Sall pour président Macky Sall bàyyi xel ci as bàyyi xel askan bi moo tax tax ñuy interpeller le président Macky Sall di la wax ne président delloo sil sa xel ñi la wër ñëpp di la conseiller naan la ces jeunes là tu peux les mater booy yi duñu dara mën nga leen a neutraliser mën nga démanteler parti bi ñi la di la wax loolu seen intérêt rek moo tax ñuy wax ñoom la ñuy wax sax gëmuñu ko dañuy wax lu leen neex rek. te yow ci sa bopp xam nga loolu ndax lu tax nanguwuloo bàyyi présidence su APR contrairement ak li nga xam ne loolu texte yi wax ne boo nekkee président de la nga war a bàyyi présidence su parti bi nanguwuloo ko bàyyi c'est parce que wóoluwoo leen amoo ci ñoom confiance et tu as parfaitement raison kon président ñooñu bu leen déglu delloo sa xel. na loo xam ne nag mën naa ko nangu mais bala may ñëw ci loolu damay quand même rendre hommage le président Ousmane Sonko ci niveau de conscience bi nga xam ne am na niveau de conscience prise de conscience bi nga xam ne président Ousmane Sonko am na ko ba nangul actionner levier boobu Amadou Ba nekk Pastef mu ngi leen koy wax ci benn émission waaye bàyyiwu leen ci xel. mu ngi leen Pastef ay borom xam-xam ñoo fa ne ñi ngeen di accuser naa leen ay terroriste bëgg ko méngaleeg parti bi nee na il faut arrêter ça ndax parti bi ak boroom xam-xam yi ci ne ñoom bu ñu décidé woon dëgg-dëgg def ay def ay actes yu mel noonu kon leneen lay doon Amadou Ba ju na leen ko. te loolu mu wax mooy dëgg parti bi du ci dara parti bi musta jéem a musta teg benn acte rek boo xam ne pour déstabiliser réew mi la bis bu ko Pastef tegee non boobaa léegi mais parti bi musta teg acte sénégalais dañuy woo jeunesse bi ñu gëm ak projet bi ñu def li nga xam ne moom la leen constitution may bu ñu gisee ne ñu ngi salfaani seen àq ak seen i mooy ñu léegi nag am na loo xam ne mën naa ko accepter ndax contexte bi mooy tax mu mën koo nangu même bu fekkee metti na trop pour nga accepter ko mais il faut que ñu accepter ko et là je parle froidement avec li nga xam ne moom lay wax mbirum sacrifice concession nga xam ne léeg-léeg contexte dina tax nga def ko ndante neexu la ndax dafa am loo xam ne du question intelligence du question stratégie waaye question de survie la président Macky Sall dafa nekk ci situation boo xam ne question de survie la lan laa bëgg a wax foofu maanaam tey en terme de popularité président Ousmane Sonko premier tour lay gagné élection présidentielle en terme de popularité premier tour lay gagné élection présidentielle bu sax demoon ñoom deuxième tour ñoom ñëpp bu ñu booloo président Ousmane Sonko moo leen ëpp poids électoral te Macky sàll xam na loolu te Macky Sall gannaawam la ragal président Ousmane Sonko bu ko wutoo gannaawam la ragal moo tax moom c'est c'est une question de survie te loolu mën nañ ko. mënuñ ko ko nangul ak keneen ku mënta doonaa nga nekk situation bi mu leeral ne nguur gi boo ko ñàkkee ki lay wuutu boo moytu mu dal sa kaw yow ak sa njaboot mais c'est normal da ngay ragal da ngay bëgg a te ci protection boobu mën nga def sax loo xam ne da nga koy da nga koy regretter finalement mais ce sera trop tard loolu moo tax ma ne un moment donné. dafa am loo xam ne aussi président Ousmane Sonko war na ko mën a nangu moom laay wax est-ce que Ousmane Sonko doit-il doit-il négocier sous condition mooy président Macky Sall nañ ko bàyyi mu dem ànd ak njabootam kenn bañ leen topp ci dara mu organiser ay élections yu transparentes bañ cee bokk. président Ousmane Sonko gagné élection yi jiite Sénégal ndax képp kuy waxal yàlla rek xam nga ne loolu mooy scénario amul beneen scénario amul ci kenn koo xam ne ñoom ñëpp bu ñu booloo woon mënuñoo gagné président Ousmane Sonko te xam ne ko bu ñu ko weddee rek dañu génn woote président Ousmane Sonko génn woote ñu xool kon aspect de survie boobu moo tax ma ne. xel war na mën a nangu ndonte neexul xel war na mën a nangu ñu bàyyi président Macky Sall ak njabootam dem ci jàmm ak salaam ndax système bi nga xam ne ci la président Macky Sall nekk système boobu moom moo tax président Macky Sall ci boppam doxale nii donc li ko doon wax mooy ndax moom président Macky Sall moom dafa meññ ci benn système boo xam ne dàqul corruption système boo xam ne maanaam état de droit da cee xaw a néew doole système boo xam ne indépendance justice da cee xaw a néew doole moom ci système boobu ci lañ ko yar ci la nekk ci la màgg ba mu nekk président kon tey moom ci boppam buy utiliser justice wala ci gouvernance moom ay détournement dafa am loo xam ne xel da kay nangu xel da koy nangu neew ma nag ñoom ñëpp ñuy am impunité xuma loolu dama ne moom président Macky ak njabootam mën nañ leen bàyyi ñu dem ci jàmm ak salaam bu fekkee condition yooyu mooy tax ñu bàyyi ñu réew mi ci jàmm loolu xel war na ko mun a nangu ndax Senghor toog na bu jóge fi kenn topp ko Abdou Diouf toog na jóge fi kenn topp ko Ablaye Wade toog na jóge fi kenn topp ko ndonte moom président Macky Sall jàpp na doomu Ablaye Wade tëj ci kaso kon moom président Macky Sall bu dee loolu mooy condition bi pour réew mi mën a nekk ci jàmm amee élection yu apaisées yu transparente président Macky Sall demal ak sa njaboot ci jàmm ak salaam loolu lu ñu war a mën a négocier la man foofu laay waxee négociation li nga xam ne mënuñu koo négocier li nga xam ne xel mënu koo nangu mooy mu ne président Ousmane Sonko du ko wuutu ci palais présidentiel loolu xel mënu koo nangu loolu c'est non négociable ndaxte président Ousmane Sonko mooy ki nga xam ne histoire. moo bëgg mu jiite Sénégal en 2024 loolu du lu ñuy négocier nee naa combat bi nga xam ne ci lañ ne projet bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko porté ce n'est pas un projet contre Macky la personne de Macky Sall dépassé ne de loin la personne de Macky Sall c'est un projet pour le développement pour la souveraineté pour beaucoup de kon bu dee bàyyi Macky Sall mu dem ci jàmm ak salaam mooy sacrifice yu ñu war a def pour projet boobu mën a jàll man de jaral na ma ko man nangu naa donte neexul man nangu naa ko